Sénégal na ngeen bitim réew na ngeen abonné KBN na sikkal abonné daaru maam Omar da liggéey alal baraaya safi wal xiyam sadal muslimini alal Mustafa baraaya xawsu jaamiu feeñ ku ne teg bëtam solal muslimini alal mustafa imaamil baraya safiwal xiyam waaw mu tëri mu tegle da leen yër njub ak jaamu yàlla ci lay teg nitam salal muslimini alal mustafa imaamil baraya safiwal xiyam waaw xam na lépp luy ñuul lu ñooy saaxiral moom sari ak xaqiqa la def ci terem salal muslimini alal mustafa imaamil baraya safiwal xiyam tanag jaayil dun kun ko dafay dolli réer ku muntaxa ne ci sunu kanam alal mustafa imamil baraya safi wal xiyam damoo ju bëgg maan bu ak xam te fa doon baax moom ñaari way juram yëpp dañoo صلى المسلمين على المصطفى إمام البرايا سفير والخيم واو ñoom dañ doon garmi doon ak cëriñ يا خبري لا rëy la nampe ndaama mag bayam صلى المسلمين على المصطفى إمام البرايا سفي والقيم واو دومي soxna بير لا نيك صالحين قام واي واحد ظاهرا صلى المسلمين على المصطفى إمام البرايا سبيب القيم وانبسو لا برم كن جرلل كوبيداي كم كمان لا لايف جيبتم سر المسلمين على المسلمة إمام البرايا سبيب القيم وولي نمينغو أمول بن خلاب بولم حارفي المولز همام صلى المسلمين على المصطفى إمام البرايا سفير القيم waaw Seydina Basiir Ndaw ku ko am pertawoo ku ne tey bëggoon nga bas mu mel ni moom صلى المسلمين على المصطفى إمام البرايا سفير القيم waaw xafis la alim la nekk waariyoo yaakaar naa ko man mbay te doy loo mbiram صلى المسلمين على المصطفى إمام البرايا شبيب القيم واو أصت ماك حبيب نو كمن برجلي دقل نياك جاخان تغي مهندرم صلى المسلمين على المصطفى إمام البرايا شبيب القيم حبيب من نقاد ديوان تمن قادر يومي أمن علم شرعي قلب أمهكم صلى المسلمين على المصطفى إمام البرايا سفي الخيم واو سيدنا تهانه مهم كرسكا سول سوكو ديسان مجوفكم صلى المسلمين على المصطفى إمام البرايا صفي والقمة سيدنا تاندو مهم كرسكا صلى سوك ديزان مجوغ فجكم صلى المسلمين على المصطفى إمام البرايا safiiwal xiyam waaw woyof lool la deefoon te neexoon a deey taam teggin ci képp kuy magam sabal muslimini alal mustafa imaamil baraya safiiwal xiyam waaw saydi muntaqa ndaw sa yaay wàcc naay kuñ ne moo la jur tey kooko xam na ndam salal muslimini alal mustafa imaamil البرايا صفي والقيم تنكو سبق الحنان القمن موي سيايتي فك يالبود bi jox ko ab añam salal muslimini alal mustafa imaamil baraya safi wal xiyam waaw yaay sawdatu ndaw sëy na boo goreel yaay lewet lool ta sedda yomb mooy jikom salal muslimini alal mustafa baraya waaw foog mu am lu baax moom yàgg lañ ci ñaar yàlla yàlla barkeel doomam ak sëtam saral muslimiini alal mustafa imaamil baraaya safiwal xiyam waaw yàlla mi falab jaam moo fal xaasi njaay jox ko tee dangaam ga yal na jëm kanam saral muslimiini alal mustafa imaamil baraaya safiwal wal xiyam waaw lim fi am da koo xeeb barke xaj na ca yàlla yàlla barkeel lépp lum fi am salal muslimini halal mustafa imaamil baraya safiwal xiyam waaw ku am ceyxu ndaw mi xaw ma looy xalaat soxna faatu faal maa ngi koy gërëm salal muslimini على المصطفى إمام البرايا صفي والخيم waaw jigéen ñi ci kër gi xam naa seeni mbir man jikoy óoru xay ni moom laa xam ci ñoom salal muslimini alal mustafa imaamil baraya safi wal xiyam asrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin abdullah wa ala alihi wa sallam ajmain mbokki julli di mbokki taalib yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di jiital si nuyu bi xalifa lépp lu mu naan ci kër Seydi Hadji Awa Ndaw yàlla may ko kattan ak fanam xeegile parce que Seydi Hadji Awa Ndaw mboolem njabootu Seydi Hadji Awa Ndaw di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi sama télé bi di ko sifuru ay chaque vendredi bu jot ñu lay nuyu baax di la ziyaar

di nuyu di siyaare boolem ku ñuy seetaan te dañuy déglu di si jiital si nuyoo di siyaare bu xalifatu xaam Cheikh Sidi Mouhamadul Basir Omar Ndaw ñu koy siyaare di siyaare ay ndax rakam di ñaan yàlla mu bàyyi ko ba si kanam kanam di siyaare mboolem jullit bu ñuy seetaan waaye ñu Cheikh Xaasan mboolem taalibe si dara ñu ndaw fu ñu mën a nekk si réew mi wala si foo mën a ne ñu ngi lay la siyaare di la wax ne ñëwaat nañ si émission bi nga xam ne dañuy waxtaanee jaar jaar Mawlana si dara ju ndaw li nga xamne dafa sayere bu nit am koy xam lolou lañuy gor gor di ci waxtane lay suñu tan katam te lepp ñu tek ci dëgg ak xam-xam bu wër tay ñëwaat nañ ci yeen di leen indi waxtaan bo xamne ne ba legi ñu woon digg ñu ne ndawet ñoo ko jëlé woon ci fam gane jamaana ay maamam suñu bawoo fa lañu tesee na lañ def ba sey ba moom kañ na feen jamaana kan may way juroom bu goor ak bu jigeen ñam ñoko ko jàngal alxuraan fan la jàngee xam-xam lan mo doon lëggéeyam fan la jaar ba taxawal li mu taxaw nga xam ne kenn si réew mi ak bitim réew kooku ne nag waxtaanee nañ ko ba si dëkkam bu njëkk nga xam ne ni koy am fanweeri at ak ñeent la am taxawal dëkkam dëkkam boppam xalif mbooloo moo xam yëpp li ko nit woon lañ ko doon defee daan na wax ne moom du borom xalal ba ñëpp nangu ko mu ne bu ma doon borom ku fi ñëw dañ naan xalal jële fii nii mu mhm. moom du ab boobu bu doon boobu xam na sañ-sañ xoolu mbooloo ñëw dajee daf ndax ñëw mu jàppale ñaar yooyu du si dara mu ne moom miskin ak yàlla la ku ñëw seet si ko rek yàlla képp moo la tax a jox ndax boo ñëwee fayul la force wul la mhm. lëggéeyam kon diina rek la loolu moo taxoon na ñu koy waxtaanee ba àgg fi nga xam ne mooy dëkk bu njëkk mu tuddee ko Madinatu Rasul sallallahu alayhi wa sallam lëggéey ba mu fa lëggéey ak ba mu fay lëggéey ñen ñu ko fekkoon ànd ak moom ci lëggéey ba mhm. yaakaar naa fi luñ tolloo kon sëñ bi ñu laa jox kàddu bi eh, boo dee ziare ñu wéy incha allah waaw mais jërëjëf sëñ Ahmed Tidiane Ndiaye macha allah wax am na solo lool yaakaar naa fi ñu dalee woon fi mu ba fi mu ba ak si mille Ndewen yaakaar naa waxtaan wi passé ñu ngi amoon ci góor gi dëkk Weng. Diagne rajo Mor Diagne. kon sëñ Mor Diagne. sëñ Mor Diagne naka la def ba xamante ak sëñ rajo woon ndaw fa lañ la laaj foofu la continué na incha allah. jërëjëf euh, da doon wut sëriñ xanaa dañ ko waxtaanee spécial pour mm-hmm. si tënk rek. yàlla dogal mu wër réew mi fu mu yaakaaroon bu fa demee danañ ko xamal ne ko kii matoo ko taalibe ñenn ñi sax boo fa demee dañ naan ko kii matu la taalibe moo xam ne kon moom sëriñam daal réer na ko ba mu dellu njaajeen toog benn bis la ko yàlla wan genn leer goo xam ne moo ko war a wan Seydi Hadji Mandaw kon na nga xam ne Seydi Hadji Mandaw du dafa mas a bindi kenn leetal ne la ñëwal ñu ànd ci diini du dafa mas a forcé kenn ne la ñëwal ñu du dafa mas di wër réew mi. Mhm. mu waxtaanee xam-xam nga dégg ko mu neex la nga topp ko. Mhm. de Seydi El Hadji Malick bi mu ganee jamono. Mhm. am na ñaar fukki at ak ñeent kër baayam mosu koy génn lu dul si tool yi la dem wala ci daara ji. keroog ba may dem jaamaal daf doon laaj ci yoon bi. ñaar fukki at ak ñeent génn kër baayam. bi mu amee ñaar fukki at ak ñett la ko mas a génn. tàggu baayam dem di ba. ba àgg. bi mu ñib see génnaatu ba baayam wàcc at la fa def mu dem jaamal bi muy dem jaamal xamut loolu te jaamal soriwul foofu lool nekk na jaamal juróomi at xamut soxla feneen xam-xam rek loolu lay tuur kon du koo xam ne dafa wër réew mi pour nit ñi xam te damay wax si dëkk yu mag pour nit ñi xam yàllaa dogal nit ñi dañ koy xam koo mën a dégg si taalibeem bi wala mu xadamam kooku lu mu rëy rëy si yow xamal ne moom moo soxlaal si dara ñoon la waaw alaaji ma ndaw yàlla rek la soxla loon te yàlla ku bëgg ku soxlaal si moom bu la bëggee jox benn buntu rek la koy jaare rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy seeti la may moo ko wax wa jummee sirru wala nawaaru laamiatan fi hibbina tilkal yawaaqitu lil muxtaar yax si mo muhammadan rabbahu yena wala si yàlla daf ko tibbal jox rasulullah ne ko jox ko mhm. waaye koo mën a dégg si muqaddam alaaji ma ndaw wala taalibeem wala ab julit boo xam ne bëggoon nga xam yàlla bëgg nga xam rasulullah donte du sa xamoon nga ne moom rek moo mën a jokkale yaa dox ñëw seet si ko ma wax la lii tey mhm. seedaa ji ma daw dëkkul si dëkku mag pour ñu xam ko dëkkul si dëkku ngéndi pour ñu xam ko mhm. dëkkul si dëkku teeru pour ñu xam ko dëkk yim jaar yëpp ñaari kër laay doo bu nawet jotee da nga romb dëkk bi te doo xam ne lii dëkk la ngir dañuy bay ba si biir kër dëkk bi te nit ñi xam nañ deful benn promotion rajo waxalul ko tere waxalul ko site internet waxalul ko journal bindalul ko kenn warul di yëgle mbiram bi yàlla tàggal xol yi ne xëy ji leen si dalaa ji wandaw ñi doxoon seet si ko ku ne jox na la loo xam ne mënaloo ko sa bopp def na loo xam ne mel mënoo koy mel la sa bopp tax na ñu lay joxaat diya ba am na ko jox kon mission loolu la woon xam le rasulullaay wane rasulullaay xam le yàlla ja jàpp jullit ñi daf leen ay xaari billaay kabiir loolu moo doon mission si dalaa ji wallaahi la woon si dox boobu mu doon dox nag ba àgg mbir na ndawen foofu na ko jaami yàlla yi doon fekk lenn li lenn li ca daara ja jaamal la ko fa jaam yàlla fekk jox ko boppam lenn li ngambi lañ ko fekk mu amee daara di jàngale bu amee dépassé tey du am bu suba ñoom ñu doyloo ko jox seen bopp ñenn ñi mit na dagal lañ ko fekk jox seen bopp ñenn ñi daaru salaam gii ñu toog lañ ko fekk parce que génn dëkk yooyu ma wax ci ah, laaj ma ndaw mm. ni ko yéeme ngi moom ku ko mas a jëflante moom yaa ñëw seet si ko mm. benn leera laay indi comme sëñ Mor Diagne ah. wala rasul laay digal la nga dem mm. wala nga dégg nit ñi di wax wala nga am chance bo amé chance dé man ngay dajé ci dara ji man daw wala nga dajé sa mbokk mu ba mu gis ci dara ji man daw waxal la mbiram nga ñew mu dimbalé la wala rasulullah xebal la nga ñew daal sa bari na wala lèr gindi la señ mo Dia lèr ko gindi mu dem ñew ba kaw la lèr ga tourné mu orienté do ba ah, mu ñew ba lèr genn pem mo ko dum jaay na ko moom ne noonu la def ba ñëw daal ba ñëw mbir na daan fekk si daal di mën a ngi toog di jàngale mu nuyu ko jàmmalante sëñ bi waxu sama guni yile muy taxaa ak laa bëgg nga jàngal leen jóg ne wëriñ moom mu yox si xolam ne sëriñ wax man sëriñ daara la ban naa jàngale boobu xam ne si dara ji ma yàlla mayoon na ko kastu goo xam ne kenn mosul gis kasu bu mel noonu. bu mm. kaasavan waa si lan xibaar. waaw yàlla dafa nekk borom moom kat borom kaso la loolu moom yéen yéen wut si dalaaj man mm. la. Mm. moom moom moom sëñ moo jàngal sa ñoom booy yóbbu. ak Seydi Mountakha. ak ñoom Seydi Habib Seydi Ta fii la leen dalalee mais ñële moom. mbiri la leen dalalee àll bi àll bi dasee lay seet ci dëkk bii. kon kooku bokkoon na si ñi nga xam ne foofu lañ fekk sëriñ bi euh, mu dimbali leen yar leen euh, xamal leen yàlla xamal leen rasulullah kon li ma la wax sànq rek ku mu mës a jëflante yaa ko fekk si te ba nga ñëwee fekk si ko defal nga ko yow lu rëy rëy lu ñëpp mën a gis waaye xam ne lam na jox moo gën li mu defal waaw dëgg la ndax yow lëggéey ba nga ko ba nga ba nga noppee ñibbi keroog am na xam ne keroog lañ bëgg a lëggéey waaye lan leen jox ba bisu tey bi ñu ngi say tedd te wér na leen ne da ngay texeyaa dina leen jëm kon lam leen jox moo ko gën foofu na mën a dimbale uh-huh. njaboot uh-huh. uh-huh. nga leen diir mbagg te si dalaaj ma ndaw moo la dimbale yow nit ñaa lay teddal dana siyaara yaa ngi jëfandikoo dara xam yàlla xam rasulullaay mu wér la da texe te borom daaroo tax te borom daaru gisatul la déggatul kon lam na jox moo gën a yow la fii lu fi nit indi balaa déwén mu jeex te moom lam la jox du xam-xam yaa ngi moom aaji kon kooku moo doon Seydi Alaaji Maalik mission xam la yàlla xam la rasulullaay la loolu mbir na la ko neexoon waaw noonu la fa ñëwee nekk ak moom ba sëñ bi sanj fii mu continué ñëw nekk fii. Mhm. fii la ko seen ah, bi yeewee. waaw ne ko yàlla gërëm na la te dootu la mere. Hmm? Seydina Muhammad gërëm na la dootu la mere. man gërëm naa la dootu la la ñooy gërëm nag dafa wàcc ci koo mas a jàngal. Hmm. koo mas a jàngal yàlla gërëm na ko dootu ko mere. alaaj moom daw na kum ne gërëm naa la ah, ah bal ba tàkk ñëpp bi gis di leen naw nii hmm. ngeen mbooloo xam ñëpp dina yéem alaaj moom daw mu leen wax jërëjëf rek kum na jërëjëf nit ñi dañ la xam ni jërëjëf la ko wax kéro bi bi sëñ mo jaay génné daru salam ba ni mi sango suuf bayatu te lu jeex la leen ñew ñi ko indil xam ne ñi ñi du leen xam mu ci gis xàgg na si mu ne ron mbaaram mi ku fa sa bopp bi ron saaju fa ñëw koo xam ne yàlla ya du fa saaju doo ñëw si ron mbaaram mi allah ma war ci sa ab xisa boo xam ne sa bàyyi ba ko seydi basir nee na ma dem na fa ak otom bi 504 bu yàgg ba siyaare ko ba ngoon ñuy waxtaan mhm. mu xebal ko dugub basi yu bëri mhm. waxal boobu basi laa moom bi sëñ bi yegsee rek lawoo taale bi ne leen bojj leen si basi bi lu ngeen man maanaam ah, fii ba ngoon da leen bojj di boros ñuy bojj di boros ba ngoon jot ñu xeb ko si oto bi ba oto bi mënta daw sëñ bi nee na bi muy génnee njaayeen ah, wala wén nga muy xiin bay lang te osol mhm. te yoon wi yoonu suuf rek la foog nga miro moo sëñ moo jaay ne ko ñaanal sa barke sa waaj te moom bu ñaanee barke nit ndaw loolu daay am bu ne barke nit ndaw rek loolu am na mu ne ko basiru waa ji barke nit ndaw na nga dem ba àgg sa kër bu dara xew sëñ bi moo ma nekk lii lii Seydi nee na mu déparé fa oto bi di daw xëy di gën a ñuul rek ba Daaru Salaam bañ wàccee bési bi ba mu dugg néegam moom ba xam ne mu ngi néegam la taw bi commencé waaw hmm? ah, ba bët set. <laughs> kon nga xam ne lam doon wax ne lu mu wax ku ko xam ne sa aaju du faju doo ba ñëw euh, yàlla dëggal na ko dëggal wallaahi kooku nag kenn la fi ñi nga xam ne leer moo leen gindi indi leen si dara jamono mu dimbali leen. Hmm. waaw lam lam lam lam la la la la ko sëñ bi jox. Hmm. moo gën leen fi indi junne yoo. allëgay boobu jeex na jeex na ah, am na njabootam yoo xam ne ñu ngi wéyal rek waaye ñoo xam nañ ne tey trang ji ñu ne ak texe gën jëm ëllëg loolu xam nga ne ku leen ko defal ku gën a ci daa ñoo boobu la ah, du sëriñ buy xaccoo taalibe du kuy jiiroo taalibe du ku bëgg a mbooloo mi ah, ku jub rek la bëgg ayaat yi la waxoon yàlla loolu la waxaat hmm. bal gàttal sama fan yi wa irsaadi ak sama gindi gi jubal gi may jubal jubal jaami yàlla yi bu ko gàttal hmm. moo tax ku fi jub moo la jubal hmm. loolu na ko nit ñi xam nañ xam loolu mm. fi ne du kër guy xëccoo taalibe mm. wala diw dafee gàmmoosi du fi gàmmoosi diw alaaj taalibe alaaj Maodo la topp wala doomam la topp wala sëtam loolu intéressé wuñ mm-hmm. nit ñi baax moo taxoon si daal Maodo yàlla indi ko mm. mu defar moo taxoon si daal Maodo yàlla ko defar na nit ñi nañ ko wax jërëjëf mm-hmm. kenn mënu ko fay kenn mënu ko moom ma xaw kenn kenn kenn koo xelaat boo ne diw mooy kalifa yow ma ko wax ñi ma woo jàpp mu set nga gëñ ko kenn ñu mun ko si ñoom kenn ñu mus ko waaw diw mooy xalifa bu Rasulullah fi mu ne nii nga koy wax di ko tëkkale si daaj ma dox képp ku taxaw di wax ñemoo moo ko wax si làmmiñu bopp xutba la yàlla dajeewoon si moom soo bëggee wéy di sa bopp wala nga tagg sa sëriñ lu dul dëgg xemele ko si daaj ma dox xemuta kenn lii la yàlla dogal si moom dogal ab yàlla nag boo si bëggee nopp la nooy def fa nga koy nangu dëgg la dottaay ma ndaw loolu mooy garaat alaaji ma ndaw du garaat kenn mënu ko kon dool taalibeem taalib alaaj mën a la waaye alaaj mën a defeer la wala mu defeer sa baay ah. wala mu defeer sa maam yow nga tëb ko romb ko fi doo ko tudd sax da da tudd ñoo xam ne jëriñu la tos loolu du gore gore dëgg mooy ku la defal loo mënu doon nga ne ko jërëjëf takkaayu nag fas yéene jox sa bopp xeesu mbindeef si dara ñu mën na ko mbindeef yee ko yeesu hmm. ah. Ah. kenn kenn si kaw suuf loo am am daraja ngir mën liyu nga alaaji ma ndaw xeesu xeesu xeesu xeesul la danañ wax ne euh, am na benn waaye bu ne Cheikhu Tidiane hmm. maqaam mi rawee si dalaa ma ndaw mënu caa dimbale kenn mooy quatre millions bépp maqaam moom xam ne man caa dimbale nit suñu man dawaa gën a foofu man caa dimbale nit loolu nañ ko xam hmm. coow bu mu bëri rek ku ne di wax ñi ñu xutbu ñi naan xawsu ku ne naan diw xalifa nangam nangam ah. yooyu neex naay wax hmm. waaye nañ xool moom ki mu doon ndax xam ne nit ku mel mel ni si délaaji ma ndaw mm-hmm. ni mu dimbalee ndax xam ne nit ku ko dimbalee ni mu xamlee ndax xam ne ku ko xamlee mm-hmm. dëgg la loolu mooy dëgg si délaaji ma ñun def nañ ko promotion propagande mm-hmm. ñu kenn lam ni moom rek ci lañ képp koo xam ne yàlla bëgg na si yow texe bëgg na si yow xam bëgg na si yow jub bëgg na si yow nga ragal ko da nga xam si délaaji ma da nga ko jox sa bopp lii may wax mooy dëgg kon jar na nit ñi ñu xacc seen laa bi na leen taxaw leen ki ki ngeen di ki ki ki ki ki ngeen di wax ne. ki ngeen di làqatu. ne du seen sëriñ mooy seen sëriñ. Seydi Hadji Malick mooy sama sëriñ. yow loolu nangootoo koy wax. kan mooy doosu sëriñ. kan mooy doosu sëriñ. kon caaxaan baaxut loolu nañ ko baax. Seydi Hadji Malick Ndao njabootam gi fi ne foo wër si xarit na fekk leen fa. danañ ko waxal nag. ku bëgg a fàtte ñu fàtt leen la. Thierno dama la ñun du ñu taxaw nii di tëral di wax ne xam nañ mbir mi ni mu demee ba baax a baax a baax. Mm-hmm. looloo tax ñuy wax. ku ne taaliba laaj ma ne takkaayul. Mm-hmm. kenn taliwul la sëriñ ci kaw suuf. Mm-hmm. suñ demee si pencam yàlla kenn du la tene foofu ndax diggante mu rasulullah nii daf ko bind de. nii moo ko rasulullah nii la boo see boo seetee buntu aaxiru bi mu tegee yàlla si antal qadimu wax ni ni ni dee di xamee. tumidu xalxal wax ni dekkal di amee. wax ne yonent bi ni muy jiitee yenn yonent bi ma rusulu ba mu jeex ba ma jeex waa dinaata bi yaa rahmaanu xurbatoo la indi seetal bu baax li ma lay wax xurbatoo kon diggante moo rasul laay kenn du si jaar keneen ku ñemee wax kon nu muy amee kenn mënta ne kii may waxtaanee nag moo ne woon bi dina ndegan sañ ko dafa fukki at ak ñaar rijaal laay wax yëpp genn wàll gi fekk fa laxasaa yi di ko lëggee sëñ Mor Diagne bi fii la daan dee ko si Daaru Salaam xenu dem ba dag duy ko ndoxé xelu ñew waaw té bobu dara la tas kan mo jar loolu nit ñi xam seigne mo jaay moy kan ko xam lèr mo la mëna a wan nga top lèr ku mëna gis lèr ba pare dafa lenk la yow fi ne yow do gis dara samné seigne ko koo yow seigne nga ba mën gis lèr lèr gi wala seigne nga ñew yow di jël ab paan di yenu dem di roti ngir dëkk bi sa sëriñ sa dëkk sëriñ ba amul ndox nga ne ko ko di ko indi defal teñ ngir mën la jëf doo xool kooku fi mu toll si yàlla nangoo koy defal ki ki nga di wutal mas yow dëgg yàlla loolu nit ñi duñ ko seet ci raay maanaam nga jël ragal yalla gi nga koy takkalee gu nit suñu bi nim ragalé yalla nit foo ma sa ragalé yalla yàlla benn yoon la bayal soxna mi benn yoon mbay ma metti bañ na ko dootuñ ko defati ndax mo gëna a maanu ñëpp ndax ne mo ci tan na ko ba tay mo gëna maanu ñëpp rasulullah rek la way ci da laaji man do da bokku su rasulullah xamula it nuñ ko jangalé so xamé alaaji man do rek xamal ne ki moy rasulullah daf ko roy si lépp moo gën a ragal yàlla su fekkee jàngoo ba jàngoo xamoon ne si daaj moom doo ragalee yàlla alaaji baaw saax mi nga xam ne yàlla hubbi woon na ko si sëñ bi wax na la ko demal jër mi ndam bala ngay tolleel ragal yàlla si daaj moom ak kenn xamut ak kenn ragal yàlla kenn la woon si kaw suuf benn xaaj si junne bu xaaj si ngëmam wala ragalam mboolem jaam ko benn xaaj si junne bu xaaj daf moom noonu la taggee Seydina Muhammad borom daal daf ne foo sunu bi alfin min jamaat yi farqa foofa alf fardan xayra munqasim soo jëlee junni yonent yi gën am doole teg leen teg rasulullah mu daane leen waaye borom daaru ni mu ragalee woon yàlla si dundam xemul seen nit du luñ ko siy wuutu jagleel yàlla loon si moom amul ku commencé seet si sa ragal yàlla mel noonu kon loo fi wut si ah loo fi wut si si rajo ma ndaw de defalu nangam dara lu fi na kon koo dégg mu ñëw fi rek booba xam na loo soxla na ko borom daaru képp moo ko mën a ay taalibe lañ borom daaru ñëpp ay taalibeem lañ borom ay baaw saaxu mu ne benn xaaj yi jinne ba xaake ci ngëmam wala ragalam mboolem jaani amuñ ko ni mu gëmee yàlla soo ko xaajee junney xaaj ni mu ragalee yàlla nga xaaj ko junney xaaj jël benn jaam bi jox àddina bi benn xaaj bi jox àddina bi mu ëpp leen benn bi ëpp na àddina bi juróom-ñeenti téeméer juróom-ñeent ko juróom-ñeent yi fu nit di gisee raw na képp ku siiw ku ñu rang hmm. bàkku yi du tey soli sang li damoon fi lépp ki ko jàng moo di Cheikh Omar sang bi moo jàng lépp aji moo fi sotti xewal hmm. ku fi siiwit moo la siwal dëgg la ku fi jaaxle moo la dalal daqatiit mu dem sang bi moo di kaasiful kurabi hmm. maa ko wax bi laariya bi hmm. moo di saafiyul wasa bi fajug aajo mooy sang bi kon na sëñ ñoom jaan jërëjëf waay li nga wax dëgg la li nga ne Sida Ndaw duñ ko defal ko formation hmm. déedéet yontu bi kenn defaloo ko formation ndax lu tax lu tax defaluñ ko dafa leen ko Rasulullah kon ñu ko defal Seydina Limaamu mm-hmm. Laay ndax Seydina Limaamu Laay moo doon yonent bi te moo doon wootu yonent bi mm-hmm. wajal asiraka waarisan daawi yow bi sow fatlika loolu Seydina Limaamu mm-hmm. Laay yàlla nag ma daf ma donn xootub Rasulullah bi ku doon xootub Rasulullah bi nag ku laay wutul ay nit yàlla laay campagnal nit te yàlla xol bu mu fëgg dootu doole xoolal kooku fu ne réseau Kaffrine la nekk ñëw fekk Seydina Limaamu Laay réseau Kaolack seetlu distance bi ni mu fa mu ne nu suuree ak fi Sidaji Mandaw ne léegi dañ bëgg a xam góor gi ñuy wax Modou Diouf fu mu tarbiya Sidaji Mandaw waaw balaa may wooy rek da nga ma fàttali fii la toog ci mbaaram mais di gàmm hmm. ñu takk fi rajo boo xam ne benn langue noor la hmm. rajo Dakar yi dëkk bi ku ñuy wax Kalador Diagne moo ko indi hmm. bi di wax ñu koy jot li nëbb micro ba fële muy dégg boppam mu ne bu leen ma wax loo ci weñu tubaab bi ah, loolu la ma doon mu ne man ki ma wuutu waxut ci weñu tubaab ci aw xeer taxaw wax mu dacaat na bi te kóolu awul. bu daan gàmmu fii mboolem ku toog si tànt bi. sëñ bi bu waxee doo xoo sa morom ne ko lu mu wax ñëpp koy dégg na moom wax boo xam ne doo ko xam. Mhm. kon ñu xam kan la. Mhm. kàddoom. aqi maqaali agri maqaali mhm. wa afaali wani yetana loolu mooy kàddoo borom daal sala ki nga may laaj muy sëñ Modou Diouf Fambaar bi muy gis si dara ñu ma naw ñëw si diin. waaw la waaye xeefeer bu dee si dara ñu ma nangul ko su la su la fompee ba nga set dooru morom yi kenn si juróomi. sëñ Modou sëñ sëñ Modou Diouf Fane lañ ko def. mbir na ndawen la fekk borom daaru salaam jox ko boppam ñu daal ko bâche yi ñu mën a te mag la <laughs> waaw sëñ bi dënn bi lu mu ko bindal du ko doy ba man alxuraan. ba bu seen ñaar bukki sib la daan ba ni ni ko yàlla wàcce ab siom ndox la teera si la koy taf bi ay moom ndox lu si nit naan wala nga sangu loo bëgg rek yàlla moom ko waaw sëñ Modou na ndewem tuddee ko Moustapha sallallahu alayhi wa muy tarbiya si dara ji man si mbir mi nan la daan tarbiya su nawet bee ci àll ba lay ne da bay ba sañu si ñor ba si bi ñor mu ne si tool yooyu di wër di tëgg bëmbali di yuuxu ci kaw di dàq picc yi loolu ci la ne woon bi mu commencé tarbiya yi jiit dafa dong ne lekk sëñ bi du ko lekk moom lu nekk di tarbiya sëñ bi lekk lekkam bu naa lekkee kën ma man njaay mi bàyyi bàmbay ci àll ba lay ne di dàq picc yi di yuux di tëgg bombali ba guddi picc yi tëdd moo tax ñib si ba benn bis nee mu toog fi mu toog ci dàtt ju ndaw ji ñuy defar si biir tool yi di yuuxu ba ci kanam xel mi ne yar si mbir na ndawet mu ne ma borom daaro nga toog di jàngale nit ñi di am xam-xam nit ñi di gis jëmam ju tedd muy waaree seen xol yi di toj man ma ne fii di yóbbu rek ma man boo perte ba timis jot mu ñib si medina ndawem dem ci kër gi fi nga xam ne fi lañ defal añ muy kër sëñ mamat sutu taw di añ ñu ne ko wér sëñ mu daw ñew sukk ci karam borom daaro mu ne ko mor juuf way nga yàqule xelante woon bul dëkk sénégal neel ci meneen réew wala nga xotti réew moom bam de juróom ñaari réew bëgg ma soqal ma xamal la yàlla xamal la rasulaay te duñ gisee yow wee ngaa yàqal doxal nga dem kon sa kenaan ba la ko doon sa sa tool yàlla doon xalaatee loolu mu teg sa ay fan sëñ bi doxaat ko foofu sa daata na sama loxo mu téye mu yëkkatu mu toog ci kaw ñoom ñaar ñu toog muy waxtaan ba si kanam rek mu gis Seydina Mohamad ñëw ñëw sëriñ bi puus ne ko ne ko defal nii sa tànk yi mu def mu tëdd fii si ñaari tànkam yi moom suñ muru Diouf te boobu mu ngay tàbbi déedéet tant que sëñ Modou Diouf si la sëñ Modou tëdd si la Seydina Muhammad tëdd ñoom ñett yàlla ba xolam sedd mu di ko xool di muuñ di ko xool di jooy di ko xool di ree ba xolam sedd yonente bi ne mes dell si laaj ma daf ko daan wane <laughs> yasir lanaa wadd hibbin wa ira ato mhm. seetal ji wax kan moo ñemee wax li damay wane rasulullah nit ñi kay lii seen problème mooy gis ko lii seen problème dëgg sax mooy gént ko mhm. gént ko moom dama gis dama gis xamul waaye loolu kii sëñ bi kii sëñ man kenn xamul lu mu doon na génn mais di ko gis ba pare bu ko soxlaa day mel dafa am fu mu ko làq rek xacc rek nga gis ko kon sëñ Modou Diouf jaar nag Seydi El Hadji Mandaw foofu sëñ Modou Diouf bojjal na Seydi El Hadji Mandaw keroog bojj ma nag waaw ñëw na si sàq di def si gënd gi di bojj di def si gënd gi bojj ba sàq mi xaaj mu jox jigéen ñi ñu beesal mu sóob di soq di soq lam bojjoon yëpp mu soq ko ba gaye mu ñëw jox sa jox jox jox soxna yi sëñ bi ne ko lii rek mu ne ko bëgg nga gërëm ma rek sëñ bi ne Modou Diouf su fekkoon ne balaay nit dugg xaj na mel ni moom dugg fa dana jafe dëgg la mu ne Modou Diouf su fekkoon ne balaay nit dugg xaj mel ni Modou Diouf konoom dugg fa dana jafe kon Modou Diouf ni mel mel ko jafe na waaw xoolal ni ko laaj bi daf ko fóot fóot ba mu seet daf ko wëllu yu mu kaasa mm-hmm. man sama baay moo ne ma bu def ba mu ñëwee Fafa eh, Mbaara buy jàng alxuraan ñaar fukki si bu a pare si bi mu koy taf li ndox mi bu la si mayee loo bëgg rek loo bëgg rek loolu parce que doomam jël sëñ Cheikh Diouf dañ ko daan rang waaw te duñu rang baa ji doom ji si ndox mi laa ñëw tànk yóbbu loo ko wax si ndox mi la laa jox te da di kat waaw Mour Diouf la waaw sëñ Cheikh Diouf fii la ñu woon sëñ bi moo ko amee woon fii sëñ Cheikh Diouf ba mu ñibbee ne nii la ko nit ñi daal Sénégal xamul ko daanu dem da seen sëñ si Diouf maanaam bàyyam bu jàngee alxuraan bu jàngee alxuraan ñaar fukki si ñaar bër bu set ñaar fukki si lay jàng ñetti fan kaamil su ko tëblee ci ndox mi bu ko tëblee ci ndox mi dëpp ndox moom ci la sëñ Cheikh Diouf di ñëw di indi moom ci lay fajee soxla waaw waaw kooku mooy sëñ Mor Diouf Famba taalibu boobu noonu Ibrahima Diouf waaw ah, ah, Ibrahima Diouf si Daaru Salaam la ak seebuñ si waaye ba léegi ma ñëwoon la sëñ Mo sëñ Moussa Ndaw hmm. sëñ Moussa Ndaw xam ngeen ko mooy borom kasu rek sëñ bi noonu na kasoom gi moo raw bu dabaa gi xàgg hmm. ay dabaax yéene sëñ Mor Diouf sëñ Moussa Ndaw xoolal sëñ Moussa daaru moo toog benn bis hmm. xool boppam xool xaj nag xam ne ku mel ni moom newut fi mu wax jenn wax mu ne man su ma yëgoo luy ñuul si wee sama luy ñuul si wee ku ma ko rawee ci yàlla ma tas sama kër gi topp waaw ba ci kanam mu yàlla su fekkee xam na te jaam boo xam ne raw na ma wan ma waaye foofu ko de hmm. ne taras ñu mel dañ am luñ koy wan fi mu toog juróomi minute sëñ musaa Ndaw yegg si ak saab bi na yow mu fay ko ñu toog di waxtaan mu ko yow foo jëmoon mu ne ko man ne dama doon wéy ma jaar fi dégg na ku baaxoon fi ma ñëw nuyoo la maa xoolal ku ne da nga doon jaar dem jaadal sa saag gi rek toog bi sëñ bi sëñ xam si sëñ musaa Ndaw sëñ musaa Ndaw xam ko si boppam waaw sëñ bi moom teel nañ koy xamal ne ko kii doo moromam si genn wet waaye maqaam yu xam ne kër gum dugg ku dugg ci kër ga dugg àjjana hmm? waaw ba ko defee bi nako fa bëgg nga jox ànd ak sama taale ba la ñuy wax dal ngeen wër min na daan kër gu ne nga dugg fa nuyoo génn lool sëñ Moussa xam ko ci boppam xamutoon daa gën a foofu moo tax yu xam nga lu tax sëñ Ndaw raw leen yu da ngay gis ñu xam da day xam yalla xam nga wét xam bopam xam nga wét xam minde fi xam nga wét foofu seen seen ndaw a li ci ëpp na dañ xam yalla xam seen bop mais duñ xam mbindeef amna ñoo xamne ñi tam yalla xam mi néew te xam seen ci man daw dafa xam yalla mm. xam bopam xam mi néew mm. loolu tax mu raw ñep mm. deug la koo gën nak far tek saagam bi parce que bu toogee Suleymaan Ndaw du bëgg jox li waji di wax mosu koy dégg mu xamne ki la laa doon gor te bobu amono na sëriñ taa benn bis mu ñew di waxtana ci dara ji man daw guddi bi marax gi ni rek diko wax mom kasoom gi nim tollu te seen bee ko xam ndax nee na ko romb na ko da baax sëñ Moussa Ndaw xamul loolu xamul ne ko sam romb na ko da baax sëñ Moussa ne moom kër gu mu dugg ñooy jafe yooyu yëpp sëñ bi ko kon sëñ bi xam na boppam xam na borom moom mais xam na mbindéef yi muy waxtaan moom ba ne ko man de ni ma xamee Jibril ak junnóodu bi muy àndal Mikaayil ak junnóodu bi muy àndal Israafil ak junnóodu bi muy àndal Xasraayil ak junnóodu bi muy àndal mbeddi xaras yi ni ma leen xamee xamee moo ko dëkk bi ki muy waxat ki muy waxaat muy Seydi El Hadji Omar moom raw na loolu sa la naa xax sa jabaarin wasum ratoo ki wax li yow nga ñëw di ko wax li xam naa aras mbedd yi niñ mel ki fekk nga mun ne sa wer la naa xax sa wasum ratoo ayaama na foofu sa wer la naa junda arwaay bi ak rabia ba jë ba jëmma xamagul tiim na leen benn par benn ba romb leen fa dem ci ba Rasulullaay yow nga ñëw naan ko weddi xamee mu romb foofu sawil naa sumratal jundi sumratal jundi ko romb naa ras romb kursi yu romb na laawut ak xaawut sumratal na ko bi laa fas yéen te bu ma tiit nga ñëw naan ko medda ras yi nangam daf ko moo réeré si garaj ma ndaw kon sëñ la yëm mukk kul Moussa Ndaw bu mu la yëm xoolal li borom daal wax sawil naa jund arwaay la wax róow yi fañ leen tëraloon ba jëmaamu ko teg naa si sama bëri sawel naa sumaratal jund bi laa fas yéen malaaka mu yàlla bindee foo mën a ne pee boo ne gis naa daal te tiituma sawel naa sa jëbbaari yàlla wan na ma xarsam xarsam gi gis naa ko dem naa ko kii moom ñëw naan ko ah ma yi ñeneen na ci man sëñ bi ne ko ah, mu ne ah, de góor nga dem dugg néegam ko dalal du muy dal rek ñooñu ñu fenn ne ko tey yow loo tëdd ki ngay waxat moo la raw raw ku dul yow li li nga xam ba di ko wax moom romb na ko te noppeeku mu jox sëñ bi dafa toog fi mu toog jogagul da dégg ding maanaam fii tëstani ñoo doon dal xam nga boobu dawul sa dawul sa sa de sàcc du dawee noonu de ding ding yii ñoo doon jàpp mu ñëw ba ci kanam sëñ bi mu waaf ne ko dimbali ma man ka li ma doon wax fañ ne ma xam nga ko te noppi man ma ñëw di la ko wax sëñ bi jël cat loxo yi teg si bopp bi ñaan ne ko ëf mu jox gisul dara te kooku maqaamam rëy na de mm-hmm. bim faro faatoo sëriñ bi ko na daru salam ba seen dëkk jaali bi ko ko ko xamne ko mbiram dara jël mm. ko nak tay ñi waxtani ni ni Medina la nek sëñ bi ko dara ji di mu mm. ku mën tok ne mbedd haraji ni lañ mel ci man mm. ba pare ñew nak di lëggeel kat dara Alaaji man fekk nga mom rom na aras dégg nga nga ne amoon na sëriñ waaw waaw loolu sa bay la ko dégg woon na naa ma am sëñ ak ñu xam ne mën a bi ndaw la waye waaye ba àggul kii na kon moo ko àggale mm-hmm. moom àggale ak commencement ak dimbali moo ci mën ci ñëpp jëm ñëpp dimbali ne moo da ndimbal mm-hmm, ndimbal am ko doy na sax ci xéwal cër bu rëy la kuñ ko cëral war nga sant ngir sang bi ñun la yàlla buur cërale mm. sëñ bu mag bi daan dimbale diina allaahi daan dimbale xeetu mustafa sang bi loolu lay dëgg kon nii la newoon bi mil na newoon. waaw léegi Cheikh boobu doomu kii boobu. dafa am loo ci doon leeral tuuti ci ndox mi nga gudd. waaw ndox mi dama leeral dama la bëgg a wax ne sëñ Modou Diouf barkeeg làmbañam yi laa lay wax. Hmm. nee na kële mujj gi du si ndoxam bàyyam yi lay ñëw jël rek sotti la jox la nga dem xam nga léeg-léeg ngay dem seeti ne ñu naan moom ndox rek laay jox la. Hmm. moytul ndox yooyu. ndox yi mbiri ji ne te mbiram si dalaa ji mën na si koo xam ne ndox rek laay joxe saa ji di fa jub mbiram si dalaa ji mën yàlla barkeel mbiram léegi moom moo Diouf moom. waaw waaw dégg sa papa dafa amoon taalibe tudd Ibrahima Diouf. du taalibe taalibe kan Modou Diouf taalibe Alaaji Mandaw la mm-hmm. Alaaji Ibrahima Diouf fara bugu taalibe si Alaaji Mandaw mm-hmm. waaye bi mu Alaaji Ibrahima ñëwee ba Daaru Salaam mm-hmm. la fi xamante sëñ bi moom itam mu mu mu kii ko danañ si ñëw sax moom itam waaye si tënk rek waaye bi mu delloo daf ko booleeg sëñ moo Diouf pour muy dem di ko seeti léegi léegi maa nga xam ne jarul muy ñëw fii di seeti loolu ma leen boole léegi ñaar léegi sëñ Mandaw ban moo njëkk fi doon mi Medina Ndewen bu ñu ko waxee mooy kër Malick Medina Ndewen kër Malick Absa boo xoolee sëñ bi taawam bi mu ko juddee Ngambi Modou Moustapha donc suñu yaay aju faat si kër Malick Absa c'est vrai kon da ngay jël ne Seydi Mansour mooy ki njëkk a juddee Medina Ndewen moo fi njëkk juddee mu teg. sëy bi Muntaxa sëñ bi am na ñu Medina la am na ñu ne it moom Maay la ba léegi Kër Maay ci la non loolu lool am na nga teg si Seydi Fadil jama fa la juddoo Seydi Habib fa la manam euh bo jëlé doomi jigéen yi sama yaay fa la juddoo ca la noonu kon señ ta moko tek ci doomi góor biñu né la asalaam yaajaa seen bu moo ko ubbi ci doomi jigéen ñi bàyyi talaa noonu kenn mu baax na kon kon ñu la njabootam demee foofu léegi nag pare na fa nag mm-hmm. nekk na mbiri na mm-hmm. fukki at ak ñaar mm-hmm. xaaye na fa lam fa ayoo jaamu na fa lam fa jaamu la ko dikkal dikkal na ko lëggéey na loo xam ne nit ñi mën nañ koy gis sa la ko dikkaloon leneen li moom diggante mag yàlla la jox na dëkk bi ay garante yoo xam ne benn dëkk ci saw xaw suuf xamoo garanti yooyu nit kay lim xamaan da ngay dëkk day ñaanal dëkk bi day ñaanal waa dëkk bi waaye dëkk bii du tas kenn mosu ko ñemee garanti te ba nga koy wax benn kër loolu xëy fi dëkk te nga xam ne réew mi day gën a màgg dëgg la nee na ni fi la génn yàlla bu am na jamee ba yàlla génnee ko fay ko ko ñëpp liñ téye seen yi ni foog nañ ne koñu um naasoon mënatul liggéey nii yàlla loolu dëkk boobu mbir na nawet la ko wax. ko foo bi ñu ko sancee ba ci déwén si. ci ngay bay de lekk la ko waxoon faa bëgg nga may ma ndigal man kenn ma bor toolam yooyu yëpp ay sëriñ ko bor bëgg oo dara mu fu mu fu mu tarbiya ko daal seen ànd ca daara ja la ca ngam bi ca Medina Dara ba ci Daaru Salaam boo xoolee sa ñooma Dramé tey ba rek doy na la exemple pour nga xam maqaamu si dalaa jamono ko koo rek koo bi ko sëñ bi ne ko bi ko sëñ bi tànnee nek ko fi béyekoon nag ma sang sang ma jox ma sama borom garaat bobu nit moko rom romb rasulullah ni ko sëñ ma ndaw doyoo lim ci kaw suuf nga tan na jëm wax waxu ni kon nañ seetaat kan xamul ci sëñ bi mu sangé dëkk bi tabax jakam ji fi ni jakk ju ñak ji nga xam bu newé newetaan day fees ak ndox mom la joxon imam gi muy jiite ci dalaa ji man mu ñëmé di jang alquran sëñ bi di dégg muy rukkoo sëñ bi di rukkoo muy def muy def bu lé sëñ bi ma kan mo am dara ju jël ma dara loolu doy na si wax jim ko waxon nak ma sanga sang ma jox ma sama borom sabab na si de laaji man daw tag nañ ko sa ñoom ta ñako ron tag ay malaka lañ liñ war dafa melni or bi ñewé ba gannaaw kërëm yëngutu bi dafa dégg melni avion bu wacc ñu ngi def ay ciel ciel ci liñ li ngëpp liñ ngëpp or la di wacc ku ñew nañu ko ne ñu lay jall sang dama te ñu ay malaka yi rahman na bi bi lo di mag la ro borom daal di wacc ndax la lu tax ñu njëkkee ba moko wara sangu xoolal si ma daa xoolal ku toll noonu bu daan wax du tuddu tunu sey dalaaj ma ndaw yi sang bi lay wax wa xoolal ko dayo bi ndox sey si dalaaj ma bu sey mana a waatee an lëggéey daay doxee tay ba ba abi son xom yow kan nga do ba bu otamu do ñew ñëw bu ot xamul doo wala bo do amee nga ñew ba daaru salaam toog doo lëggéey nañ seetaan suñu bop nañ seetaan suñu bop de ku defu dara koku do am dara loolu mooy dëgg sëñ ma Dramé tey bi nii tey boo demee si gàmmam wala nga dem si siyaaram ba gis mbooloom bi gis njabootam bi loolu bu mu liggéeyam de dafa am fu mu jaar de dafa am lu mu nangu woon loo xam ne mu ngi fi woon ak ay nit bu ko daan def da leen romb seen dàtt yi di doxal tànkam yi ku ko gën a tedd amul xaamisu Quraan la xalaama la topp si daaji ma daw bu ñëwee sax du mën a bay waaye dana ñëw biñu xool si kooku te dégg naa si ku ma doy sëkk moom duñu ma si ma xamam dara tudd ma ku ku màgg si réew mi na ma tolluwul ko si doyoo. waaw si ma daal tey hmm. boo xam xam ne dugg ñëpp foog nañ ne kuy naaw la si ma xam te tolluwul si yow daal tey ba si si si si si la doon. xool ko foog nga xam rajo si ma ndaw si ñu ko toppoon ñan lañ. seetlu nga ko kooku moom moom itam bokkoon na si ñu newoon mbir la bokk si taalibe sëñ bi yu mag yi nga xam ne tànn na leen. bi nga xamee ne nii nag pare na foofu ci Medina Ndaween nag ba am digal si ñëw Daaru Salaam keroog waxoon naa la nee naa la sëñ Mbaara Thiam ñëwaat na wax lañ ko waxoon ca nga ne ko nañ ne liggéey bi pare na nga dem sa noppalookaay la noppalookaay bi yàgg na fi de fii la gën a yàgg si kaw suuf suñu man na bu ñu la laajee fu mu gën a yàgg looy wax Daaru Salaam fanweeri at la fi def 1947 mm. la fi commencé fanaan ba 77 bu ñu la laajee fu ci topp fu mu gën a yàgg neel kër baayam 1901 la ko commencé fanaan ba 1924 feneen fu mu gën a yàgg neel néeg na ndeween 34 la fa commencé fanaan ba 46 jaamala ngaa mel fu la juróom ñaar dina ko yàgg kon waaj na ñëw sa si abi yow boo amee question waaw ah, léegi moom moom muqaddam yooyu nga lim rek ñoom la nekk toon ba dina sama xel mën naa ñëw rek mën naa ñëw sama xel boo xamee kenn laaj moom man man kay xaw ma ñëw. waaw comme comme kenn daal. léegi ñu doon daal solo. waaw si wàllu tijaan kon ñu continuer rek ci laaj bi. ban at la Seydi El Hadji Omar Ndao sant Daaru Salaam. sa maam sa maam moom fan la toppee sëñ bi. sëñ Moon Njaay daal sëñ Moon Njaay sëñ Moon Njaay. ba mooy ni sa daara ji. keroog ba mu déggee. daara jam ne woon na fàttali naa waaye daara jam ne woon keroog ba mu déggee ñu ne Seydi El Hadji Omar Ndao bàyyi ko na jaamal mu ngi ngam bi sanc na daara daara ji ne nañ ku fa mas a dawee bala nga am kilomètre jàpp nañ la bala ngaa yegg lu mel jàpp nañu Paa Mor keroog bi mu ne départ bee si ngam bi seen ko ba di ko jàpp. yàlla ku nga aaru mm-hmm. ndax loolu mu ngi bëgg a gis doomu nijaayam. Mm-hmm. Paa Mor kuy bàyyam. Mm-hmm. Ousmane Fatim. si dara ñoo nag ay jeunes Fatim bàyyam comme doomu nijaayam danañ bàyyam. waaye Paa Mor loolu sa àllam. nekk tarbiyaam ba kan la dëggalee ne yow taalibu wér la Paa rek. wóolu na ko si lu ne ma dërëm boo ko fii ba déwén su la ko joxaat dërëm laay doon loolu bay wut si morom kooku sa ngam bi la àndee moom bi la ko tarbiya sa ngam bi la ko wanee Sidina Muhammad boobu paa moom ndaw la de moo ko wax fii si yàlla général waaw mu ne Sidina bi mu koy wan Rasulullah mu ne ngam bi ngam hmm? moon mbombe mu ne ko ndaw mu ne ko indi toog mooy toog yi loo bi di xeet toogu yooyu mu teg sëñ bi toog si mu ni ko beneen mu teg mënu ko indi beneen muy teg mënu ko toogal si bële nee na suñ tuut suñ naa moomal ñëw toog si bi si digg bi mu ne ca ngaam bi laa la boobu yii ne xew gudde ngaam bi ñu naan ko sëñ daara boobu sëñ daara nga daan waaye moom muy wane rasul laaj ban sëñ daara amoon loolu eh, waaw kooku nag keroog bi si daaj moom na bëgg a xool fii nii xàll bii nii bi ko yàlla na ko ñëwul fii xàll bi nga xam ne suuf su dàkk la ñuul kuk ku ko xool mu tàlli nga ñëw bëgg dëkk junnee dafay dàqale xoolal sàmm dàqale ma xam nga sàmm dàqale ma. waaw ñoo dañ bëggoon dëkk. dañ bëggoon a dëkk. waaw ñëw xool xale ba mu doy leen ñu ne nañ gas jar di kas ba si digg bi waaye dina si biir jënd ji di wax ak moom ne ko sàmm dàqal mbaam bi naan waaye bu sori bi ba nga jóg fii bu subaa boo xaysee dañ lay suulaale mu daw ci rajo man daw ko <laughs> fekk fii boobu moom la ko yàlla di xaaral kenn ñu mu fee dëkk bu dul moom ñu ko fi ñëw espérer dem nga ñibbi keroog bi mu ñëw sëñ Pamon laa Meyra aw Chine waaw waaw ah, fii. fii bi fi njëkk ñëw ñun ñaar la. moom Ndiaye moom lan moo waroon suñu bokkul woon Modou Sarr. Modou mooy xool na ko ñu jegee ñoom ñaar xam nga naa doomi nijaay doomi bàjjan mhm. te jàppewut ko. Mhm. sëñ bi buy wax du ko xool. Mhm. lu ko sëñ bi digal dana ko def. lu mu ko tere dana ko ba lu mu ko dégg du saaw. du wutoon ku ne ci sëñ bi di lekk sëñ bi. moom dafa ne woon sëñ bi di dundal sëñ bi waaye dundee wutoon sëñ bi ndax daan na am. lu mu xam lu mu bëri bëri daa ñëw jox ko si Alaaji Mandaw kër gii la dëkkoon nii moo gënoon a jege Alaaji Mandaw waaye xoolal xoolal gii ji jëf ju rafet keroog ba mu ñëwal euh, euh, si Alaaji Mandaw màggee ba jotee am kër la leen dëkk gën a doom gën a jege bàyyi keroog la jël kër gi jox seen i mu am génne dem dëkk waaw mm-hmm. xam ne ñooy yàlla kese moo taxoon ñu ànd si Alaaji Mandaw mooy ngor dëgg waaye xam ngeen yàlla fay na ko leetal la leetar dana danoon xëy màkk xam yóbbal bu doy moom si de laaj man dara dugg si boto ci tënk rek dañ ñëw jaaj lee ba si biir bi xam lu ko fi feeñu lam xamoon mbir xam lu ko feeñu si boto bi da wax moom ca lam xamoon ñoom ñaar ñuy waxante te loolu jaam yàlla bu yàlla xebal la bu ñëwee jëmm ji bu ñëwee timis bu timis di waaj lay ñëw suur bi njëkk gisee moom si de laaj man daw borom daaru kaa la ko tal la muuru sol bu mu ñuul kukk fas yi sëq ba di weex tal mu ñëw nuyoo si biir gaal bi di dox dox ba ci borom daaru salaam di tudd ismu laay lax sëb ca kaw moom ko kooku waaw te lay làkk sëñ bi fëgg ko ko li ngay wax ko wax mu laa ko si tukulóor ne ko li may wax yow rek yaa xam si ñu wax changé rek ca tukulóor bi doon wax ci kaw ca kaw yi woon noonu loolu duñ ko wax ci kaw pour mën naa yow rek yaa xam si côté bi kon mën naa ko yow. waaw caa mën naa bi ñu ci koo bañ bañ bañ wax si wax lu xóot. xam ne neexut fii sax. lañ génn lool dugg ci ba génn ci loolu kooku am lu mu jëflante moom ci salaat faatiha sëñ bi dafa xiiroo yëkkati ci xaalis xaalis bi nga xam ne moo war a nekk euh, sëriñam yóbbu la tibb si jox. bi mu bi mu bi mu demee nag ba war a ah, xam ne bu jëmee màkk mm. dana am lu wàññeeku ci moom mu mm. wax mu bind leetar nag boo xam ne mm. fax lay doon pour mu ñëw sëñ Moon Njaay mu mu dem ci taalibe yi wala dem ci commerçant yi lebal ko senama la lu toll juróomi junni ci jamono jooju pour ñu faxaat ko ko mu dajeeg moom màkk ndax bota loolu du dugg ak xaayi baa ko bàyyi njëkk loolu mooy leetar bi mu ko doon bind nag ci la ko defal adresse boobu ne mu ngi jëm si muridu saadiq alaaji moon ba mu njaay moon ba mu njaay boobu dema ko boobu na nangu woon ne mënuñu saa di taalibu bu dëgg loolu moo la na ñëw xool àll yi ba mu bis muy bisam àllal ñu yëglu ko ci àddina bi war fas rek patron yi boobu ñoo am fas ñu si des dañooy dox ku ko yëg rek yëgal ko kenn waaye buñ ne ma ndaw moo seen sa dëkk amul nga bëgg ma sama rang rajo ma ndaw la lim taxawal te boobu xamul benn nijaayam joo xam ne nga ko dara si wetam nijaayam ji wetam dara amul magam juga mana dara magam yi ma àndal yëpp si moom lañ amul rakka juga mana dara moo rakkam sax du ko gis mun nga mën na saw mooy Ibou iya, Sow baayam faatu na yaayam faatu na moom kenn condong la nga xool lim taxawal sañ ca dëkk gas teen si jamono yooyu tabax jàkk tabax dëkk da xay di joxe dépasse c'est man ndaw góor la foofu la sama am jàpp ba mu jàppee bis nag mu nga defoon jaati ga dàgg gi dàgg su daan ñëw dal benn sëriñ daara bu fa newoon bu am barke ñu koy wax Mourou Bamba Sall yàlla dogal na amul doom loolu tax xamoo li ñu xam njeexital waaye ku dimbale sëñ bi la jamono jëm fii si dëkk bi sëñ bi béyee ko an mbir mi keroog bi ñuy gor si dëkk bi talaata ci tàkkusaan lañ béyee ko mbir na waaw mu wax naaru góoroo taal bi yëpp topp ko ñii gàddu roto ñii daaba ñii chimine ñii ku ne la nga mën a amee rek da dox moom kenn moo si war moom kenn képp ñu si dañu dañoo dox fon lañ jëm dàgg pour fanaan kan moo di Bamba Sall fekk jox nañu réew mi yëpp ñi nga xam ne day sori ñëpp dañ ñëw fanaan si si àll bi fii te boobu li fee bukki li fee ndog ment as leen laa dëkka maa ya saaw min subiin wa min azabin lépp moo ko fi dindi ah lépp moo ko fi dindi seema ndaw loo wax rek bind na ko di yëpp moo ko fi dàq as leen laa dëkka maa ya saaw min subiin wa min azabin lépp gaani yeeg gaynde yeeg bukki yeeg yëpp moo fi daaw keroog bi ñuy gor fii da ngay toog bukki di firnde di daw waaye taal bi doo yëngu leen sax bi mu xëyee dànk waraat fas yi taal bi topp gën a siital ba si digg dëkk bi fi dëkk bi ne nii fi la taxaw fi jumaa ji tolloo toll benn gajjeg ren si la ñëw jël satalal ndox bi satalal weñ la sotti ko si ron gajj gi ba mu tooy xat mu taxaw sol grand bu boo xam grand bu baxa la enu pemb oh. koo nga ko yaa ngi dégg li muy jàng bu bëri xëy boobu yéen bu bëri jang ko ci ko ba ñepp diko deg mu commencé na jangan nang nak lañu seen ci deug mu jang ko ba mat mu dé mu jël chemin mu ndaw gor nak go bam daanu mo musim lay ridididid ngay deg ridididid nit ñeenu ñeenu ñeenu fepp la la bi yang ci grab yu magi di nam chemin di jox nit ñi ñi di gor non lay gore deuk alhamdullilah lool mi nga 1946 bi mu wéyé yawaqit bi fele ba net bi wacc lañ ñoo fi gor mu ne garab ak taba yi buñ leen daane taba yenn ñenn ñi sax jàpp ne taba gi neex doom yi lekk yooyu fekk na boobu ndeke yàlla xamal na ko ne fi nga jëm leer ren yi taba day wàññi leer ren yi taba sëñ bi mu jël dina moom la daan xool loolu taxoon mu ne buñ daane taba yi xamoon na ne dana toll foo xam ne nii su naanu ren taba yi du mën a nekk nit leer gi day xëpp heure bu ne heure seconde yu ne mu ngi dóoree ndax tab yi mu waxoon loolu tab yi niñ fa taw zakat tab yi mu waxoon nañ ko fi ba nag yéen daan di gas di indi di ko jox muy naan loolu te noonu ba benn bis ñu gor ko ba ku fi romb da ko simb yu mag xam ne lii dëkk la lii 46 la mu ñibi mu ñibi ba 47 nag la ñëw tabax fi gas fi teen mu xaaj këram si digg bi indi bi sa maam boy indi bi sama maam bàyyi ñaari soxna yi fële 47 mu nekk dëkk ñu dëkk fële ca ñaari soxna yële foofu la njëkk dëkk nee fi ay fan demaat Médina noonu la ba 48 nag la jël ñu indi yëpp fii fii ñu ngi njëkk a gàmmoo 1948 dañuy njëkk a gàmmoo déwén sa 49 nag ci la doog dem Màkka lii mooy santab Daaru Salaam tey ñu doon leen ko waxtaanee ak lañ doon àggale si Médina asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Cheikh Naa Tidiane Ndiaye waxtaan bi am na solo lool alhamdulilah tegu na ci xam-xam tegu na ci dal tabarkalla macha allah si ki ngeen waxtaane nag moo toll lool bi moo toll noonu jërëjëf Cheikh Tidiane Ndiaye yal na yàlla guddal fan wi yokk xam-xam bi yokk fan wi yokk jaab bi parce que si rajo bi dafa noonu ñu ngi lay gërëm lool la ziar lool di ñaanal yàlla borom télé bi di Sidi Amadou Habib moom yàlla yokkul taxawaay ci kër gi la ndax bëri na ñoo xam Daaru Salaam ñi ngi nekk bitim réew ñi ngi nekk gan ñi ngi nekk fu ne bëgg nañu xam si laa yoon moom la ci saar yokk la ci baat di gërëm Seydi Mouhamadou Tahir bi neex yoo xam ne moom mooy maamam moom it yàlla nañ gën a dëgëral baat bi ñu bokk ci soxoraaw yu gën a mag ci Sénégal yàlla nañ bokk lépp loo xam ne bëgg bëgg na koy wéy rek yàlla na ko yàlla may kattan bu ko wéy barke baayam ci barke maam di ñaanal suñu xalifa Cheikh Mamadou Bassir yàlla yàggal ko fi lool yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér mboolem naan ñu am ci kër seen añu lool yàlla may ko xaj ak kattan ak fan ak tal bu ko motalee moo ko rakkam yi fi nekk yëpp muy wax jox leen di daje beneen aju incha allah borom sama ci waaw waaw waaw ñu ngi sant ñoom Sidi Youssoufa ci teewaay bi Sidi Tahir Sidi Habib di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm ak sutura bu ñu fekkee àjjana bi si jàmm ñu àggale ko si jàmm incha allah. Sénégal na ngeen abonné bitim réew na ngeen abonné KBN na sikkal abonné Daaru Maam Omar da liggéey